allah Modou Diouf comme ni ñu ko defee woon sànq rek ba tey dañuy poursuivre ci suñu plateau spécial sargal jigéen bu ñu nee 8 mars rek dañuy xel yëpp lay dem ci li nga xamante ni moo di les femmes battantes tey nag ñu ñëw choisir li nga xamante ne nii moo ñu def wàllum transformation céréale tey nag ba tey rek ñoom la ñu daal di seet si waat ñu ànd ceeg benn soxna mi ngi ni toog sama wet li ñu def leen du nuyu ko rek mu daal di nuyu mbokk internet yi. a wa rahmatulah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare. maa ngi tudd soxna maam Fatou Lo dëkk Touba Jantu Maxwa su uni sunu unité tudd waa kër Serigne Saliou Mbacke. Mhm. ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare. di leen di jaajafal ci bi mars bi ngeen nuy jaajëfal nuyu ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup bi. maay présidente bi mhm. bu ñu transformation dañuy wax processus te amee processus il tamit nga daan ñuy expliquer li nga xamante ne bii moo xew ci biir bi dañuy bàyyi rek nga daan ñuy expliquer li nga xamante ni moo xew fii. waaw li xew ci biir entreprise bi mooy dugub jaa ngi nii lii mooy première matière bi. ci dugub dugubu suuna mooy mooy lii mooy dugub bi leenee mooy mboq mi léegi suñu indee dugub bi pour stocké fii lañ koy stocké léegi mboq bi fii lañ koy stocké léegi suñ xëyee pour war koo liggéey fii lañ koy peesee waaw fii lañ koy peese ci basul bi suñ ko peesee ba pare daal di koy yóbbu nii marché daal di koy yóbbu nii defar ko ba mu yegg suñ ko defaree pare door koo indiwaat fii ci biir machine yi machine yaa ngi nii lii machine soq la boo xamante ni dañ koy tooyal lee machine kafe la lii machine wal la lee tam machine wal la ñii ñaari machine wal ak machine café ak machine soq bii nii machine bii mooy xoos bi kenn du ko tooyal moom day xoos moom noonu lay soqee dugub bi ba mu yegg waaw léegi dugub bi ñu mi ngi nii bi nga xam ne moom la ñu war a defar pour suba bi nga xam ne moom lañu war a defar pour suba moo nekk nii waaw. lii machine bi waaw lii machine waaw machine wal bi ak machine toq bi. léegi biñ ko defal. léegi ñii moom ñooy mooñ bi nga xamante ne ni wal nañ ko ba pare jigéen ñaay nii suñu waa équipe jàmbaari fàkk tëdd yi macha allah ñoo nekk nii gis nga leen liggéey rek lañu gëm. buñ ko buñ ko buñ ko kiiyee ba pare ñoom ñooy ñëw daal di koy mooñ ñoo koy mooñ waaw même ñoo koy defar jógee ci machine bi bala ñu koo mooñ premièrement xam nga dañ koy defar ba maj ba mu mucc ayib ndax dugub moom kenn mënu ko kii rek te daal di koy wal dañ koy defar ba mucc ayib mhm, li ñu mën a jàng rek mooy kon dafa mel ne métier mi yombul yombul moom métier mu metti la sax mu mettee mettee metti mhm. waaw moo tax moom ñuy sàkku ku nu ci jàppale bu baax a baax ndax aajana jàppale nu ci mhm. ci ay machine yoo xamante ne nii day mën a mooñ machines yoo xamante ne nii day mën a toj gis nga cere ji nii di wawal cere ji ak ay sasoir yu ñu koy mën di wawalee ndax métier moom métier mu méttee métti la. ban heure xëy. dañuy xëy ay 7 heures la ñuy xëy. Mhm, waaw 7 heures la ñuy xëy chaque jour. Mhm. waaye bu ñuy wàcc tamit léeg-léeg ñu wàcc 5 heures léeg-léeg wàcc 6 heures xam nga ne loolu mhm. waaw sans départ heure bu ñu paree rek gis nga leen nii. gis nga ko ñii moom ñooy tey mooñ gi nga xam ne mooñ nañ ko ba noppi nii ñii ñoo koy tay gis nga leen nii xam nga ne lii moom macha allah yombut <laughs> jigéen ju am jam rek te nangoo sonn waaw bëgg luñ yóbbu ca njaboot ga rek ak bëgg a debale ko Sénégal yaa ma gën a xam. gën a remarqué dafa ne amu ci xale nag. déedéet amul ay xale lii xale mënu ko xale nanguwu ko sax lii xale nangu xale yi nanguwuñ ko <laughs> waaw am nay xale de waaye bëriwut de moom waaw. xam naa li ko tàmbalee ci ay juróom fukki at ñeent fukki at juróom ñoo ci gën a bari. waaw. ñaata ngeen di faral di defar par jour. dañuy faral di def 30 euh, kilos nag moo ci gën a bari. 30 kilos moo ci gën a bari waa kenn ku nekk. Mhm. ñu defar 30 kilos. soxna ma Fatou ginnaaw bu ñu jógee ci atelier bi fii ñu duggaat nii mooy fan. fii daaral la joo xamante ne ni njàngum olofal lañ fiy jàng. ku ñuy wax Moustapha Cissé moo nu fiy jàngal. ndax ni nga xamante ne nii loolu la ñuy def fii ci transformation céréale bi muy unité ba. Mhm. loolu tamit la ñuy def fii ci daara ji. Mhm. soo xamante ne wàcc nañ foofu dañuy ñëw fii. di fi sàkku xam-xam pour ni nga xamante ne nii noonu la ñuy xamee fee nu xamee ko tamit fii ndax ku ci nekk di war a mën a bindal sa bopp di mën a liiral sa bopp dafa neex loolu moo tax daara ji ñu ubbi ko di sàkku tamit ku ñu ci jàppale ku ñu ci dimbali tamit accompagner ñu ci fexe ba jàngalekat bi ñu am lu koy luñ ko mën a fayee ak tamit ndimbal loo xamante ne daal daara ji dana ca mën a ku mën a jëm ca kanam am nañ ci yéene lool daal moom pour ku fi nekk ne rek rek jéem a am xam-xam mënal sa bopp dara waaw. ok ñu benn élève mu ant int untu ent ënt ent ontu ontu ant mant montas mint xuntu xint xon gént gent gontu lënt xent bant pont. mu nekk ay baatu olof yoo xam dañ leen koy jàngal fii. Mhm. ay baati olof yu ñuy jàngal la. léegi ngeen koy jàng di tax na tamit ngeen di mën a lire olof bi tamit. waaw. si Moustapha mu mel ne yow yaa nekk professeur bi leen di jàngal fii. waaw comme ni ko wolof yi di waxee ñun ñooy yombalkat bi nga xamante ni eh, ñoo nekk ci biir daara ji eh, comme ni ngeen gisee processus bi yëpp ni mu demee noonu gannaaw ba ñu duggee ci di leen encadrer eh, ci la ñu gis ne nit ki tim faaw mu gën a xam. Eh, ci làkkam ndax kenn ku nekk war naa mën a xam ci làkkam di ci bind moo waral li ëpp ci askan wi eh, ndax olof la ñuy wax loolu moo waral ñu ne leen njàng mi faw ñu gën ko cee yokku ngir ñu itam li ñuy jàngale eh, ci biir unité bi ak li ñuy jàngale ci biir daara ji ñu man di ko tënk ndax kenn ku nekk si ñoom gis nga ko léegi nii ci baati olof yi nga xamante ni moom lay wax nga xamante ni dañuy jël li nga xamante ni mooy làkku nasaraan bi jukki ci li nga xamante ni mooy arafu olof mën cee tënk ay baat ni ko waxee nag war yaatu la ndax état daana ko maye muy programme boo xamante ni programme alphabétisation la boo xamante ni am na académie boo xam ne ministère boo xam ne jàngale jàngale moo ko tax a jóg jigéen ñëpp ma ñi ngi ci mën a jot seen bopp loolu jafe-jafe la ba tax ñoom eh, ci seen dërëm ak seen i eh, la ñuy dajale eh, man cee jënd seen i matériel defar ci seen tablo jënd ci seeni i craie jënd seen ardoise ñun ñii li nga xam mooy sunu transport ñu ni ko ciy jox nga xamante ni danañu

nga koy fekk ndax euh, da ngay jàpp fii moom mu jàpp fii lim xam lay indi yow itam nga xam li nga xam nga indi ko ngeen boole ko tënk ba juboo ci genn kàddu bu ko defee noonu la njàng mi di euh, doxe ndax njàngale mag yombul bu dee xale sax mën na yomb mais bu dee mag nga xamante ni euh, toll na ci foo xamante ni pour mu téye biig sax problème lay doon waaye loolu lépp comme njàngalem olof dañu lay wax ni nga xamante ni noonu ngay binde sax da ngay gis ne mbind mi doo ko bind mu nekk bind muy taqaloo waaye expliqué xam naa peut-être bu fi CREI euh, nekk jege woon noonu ci wet googu noonu ngeen jotli ma ko ma wan leen ma ni nga xamante ni noonu la yëf yi di doxee maam jotli ma benn CREI foofu noonu euh, ci bind saa bu ñuy bind da ngay gis ne ñun dañuy njëkk commencé nii di leen wan comme par exemple boo jëlee lii jël lii daanaka li ñuy bind lépp ci ñaar yi lay génne moo tax dañ naan la lam bu damm bi ak lam ak yat bu taxaw bi moom ngay jël nag di leen ko leeralal bu ko defee defal leen ma ak lam boo xamee dafa tijji ko sa ndeyjoor wala dafa dikki ko sa càmmooñ nga lonk ci benn yat xam nga dalay jox ba bu fekkoon ni da nga ko jëlee nii nga defal leen ma lam lam bii nii nga jubbati ko mu dëpp nii dalay jox uyu bu ko defee yii dañ koy mën a xam nga xamante ni kon mbind li muy bari bari ci ñaar yi lay doon soit lam bi dafay gudd lool wala mu gàtt ndax tey jii même sax dama koy expliquer ne naan langue ñaari langue rek maanaam arab alxuraan lépp ci ñaari yax yi la génnee te loolu mën naa la ko démontrer pour nga mën koo gis par exemple lam bii moo nekk nii xam nga yat bi mu ngi nii bu ma ko gàttalee su ma ko tourné nii def nii xaj na am na lu may jox ah su ma su ma fekkoon ni lam bi ba tey dama ko wëlbatiku mu jëm nii su ma ko wëlbatee mu jëm nii xam nga jërul ma koy teggi mën naa jël nii dana ma jox waaw kon yat bi laa ci lonkaat comme ñaari lonkal rek li mbind di yaatu yaatu moo xam angale la moo xam lu mën di doon ci ñaari lonkal lay doon loolu la ñuy njëkk def ci seen bopp nga gis ne ñëpp dañuy daal di comprendre naka la ñuy bindee kon loolu nekk na loo xamante ni nit ñi jàngal leen ci langue bi nga xamee moom lañ dégg dana yombal suñu liggéey kon daal ñi ngi sàkku ñu gën leen a jàppale ndax ay actrice de développement lañ ay jigéen lañ ñoo xamante ni li ñuy def bëgg nañ ko xam nañ ko te am nañ ci fulla ak fayda. ci foofu laa bëgg nga tëjee sa sax par rapport ak 8 mars bi ñun ñu choisir leen ñëw sargal si leen naka nga dundee ak ñoom ak ñi nga xam te noonu nekkee ay jàmbaar. waaw euh, duñ def lu dul rafetlu yéen déplacement bi ngeen def parce que lii tim ci information da cee bokk fekk ci askan wi li nga xamante ni mooy actualité nga fekk leen ca fekk surtout ci li nga xamante mooy volet bi jigéen ñi parce que jigéen ñi sonn nañ kon ku leen jàppale dana nekk loo xamante ni lu ama am solo la ak tolluwaay bi nga xamante ni tey jii jigéen ñu baree bari illustré wu nañ ci xew-xew yi weesu kon tey yéen bu ngeen jógee ne da di sargal jigéen duñ def lu dul rafetlu ko ne 24 moom ñi ngi ci liggéey boo xamante ne liggéey bu ama am solo la kon war nañ leen cee mën a gestu jàppale leen ci bu baax a baax rawatina nag gën a jigéen ñi gën leen a jox seen gëdd gën leen a delluwaat fi nga xamante ni foofu la ñu jóge woon ci wàll bi nga xam ne mooy cëral bi ñu leen cërale woon ci wàllu parité ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñu xam ne ay jàmbaar lañ ndax boo jëlee soxna si tey muy employé 26 femmes fukki jigéen ak juróom ci unité bi kon loolu war nañ koo gestu war nañ koo xoolaat war nañ koo dooleel war nañ ko yokkal formation yooyu yëpp te lii dañuy ñaan ngeen tas ko mu dem ci jigéen ñu baree bari ndax liggéey la boo xamante ni bu am solo la surtout wane jigéen ñi kon daal yéen ñi ngi rafetlu sargal bi nga xamante yéen ci ànd ak euh, jigéen ñi euh, kon di leen jaajëfal bu baax a baax. soxna Mame Faty ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di la bàyyi tamit nga daal ñu gën a présenté waat rek seen unité bi ni nga xamante ne lu tudd ak ni ngeen di doxalee. ñoo ngi lay fayaat nuyoo bu baax di la delloo ziar di nuyu équipe bi nga àndal di leen jaajëfal bu baax a baax. man maa ngi tudd maam Faty maa ngi dëkk Touba Jannatu unité bi mi ngi tudd waa kër Serigne Saliou Mbacke Touba Jannatu noonu la unité bi tudd. ñoo ngi yëngu ci wàllu transformation sociale waa. dugg nañ sànq ci biir unité bi gis nañ li nga xamante ni moo fa nekk bëggoon ñoo xam tamit ñaata personne ñoom ñooy liggéey ci biir. Hmm, léeg-léeg lu mat fanweer danañ fi liggéey léeg-léeg ñeent fukk ak juróom fa léegi léeg ñaar fukk ak juróom-benn yemul fenn daal noo xam ne noonu la produit bu kiyee rek waaye chaque jour moom ñu fi gën di nekk daal xam naa ay ñaar fukk ak juróom-benn fanweer dañ fi ne waaw. ñaata produit ngeen di liggéey. Hmm, bari na nag produit yu ñu fi liggéey moom ndax matière bi dañ koy liggéey mboq la. maïs dañ ciy liggéey cere dañ ci liggéey brise de maïs bi dañ koy liggéey nga xam ne bii mooy couscous couscous mboq la waaw bii couscous mboq la bii sombi mboq la sombi waaw comme ni ñu toggee sombi noonu lañ koy toggee mhm, defar nañ ko ba mucc ayib bii tam kii la euh, bi tamit ceebu mboq ceeb comme ni ñuy toggee ceeb noonu lañ koy toggee ñoo koy defar waa fii inte bi dañ koy tay defar ko ba mu ñor mhm, comme ni ñu toggee ceeb rek noonu lañ koy toggee bii caagri ñebbe la caagri waa caagri ñebbe la moom itam màcce ñebbe ji dañ ciy def lu mucc ayib lii tam cere ñebbe la cere ñebbe moom la waa bii farine ñebbe la dañ ko defar moom itam ba macha allah mën na akara man na lépp loo xamante ne nii loo ci bëgg rek mën na ko mu ngi nii farine la dañ ko defar farine aaristo bu ñebbe gis nga ko bii sanqal la sanqalu dugub sanqalu dugub la bii cagri la cagri dugub la bii bii araw la araw la waa gis nga ko araw la bii tam cere la cere waaw cere dugub waaw lii cagri ceeb la ceebu mbay lañ koy defaree kon dafa mel ne wu leen benn déedéet lépp la ñuy liggéey lii ceeb la hmm, cagri lañ koy def bi itam cere ceeb la cere ceeb la bii cere ceeb la macha allah lii kii la farine arachide moom la ñuy jox mag ñi nga xamante ne nii dañoo xaw dañoo màgget mm-hmm. macha allah bu ñu ko lekkee day def ci ñoom lu bari ñu mm-hmm. koy dañ koy jox tamit xale yu xiibon yi mm-hmm. dañ koy defar fii bii ñu ngi ko defaree carotte ak matière yi mu war a àndal yépp bii tamit farine arachide moom itam comme ni ma ko waxee ci biir rek dañ koy jox mag ñi di ko jox xale yu xiibon yi bii nebedaay lañ ko defaree ak li mu war a àndal yëpp waaw produit yi daal mi ngi. Euh, gis nañ tamit euh, benn affaire mu di dafa mel ne emballage yu bokkuñu. Mm. bii dafa cartonné bii tamit dafa nekk en plastique ak yooyu ñu bëggoon a lan moo waral mm, lii moom comme niñ ko kiiyee rek comme niñ ko euh, suwaa rek dañoo am am nañ ci ay façon emballage yu bari comme ku ko bëgg rek emballage bi nga ci bëgg fekkee bii nga bëgg nga wax ñu ñu defal bu fekkee bii nga bëgg tamit nga wax ñu defal. yëpp a baax moom yëpp a garanté wax dëgg yàlla yëpp a garanté ndax boo ko xisee def un an dara du ci sikk gunóor du ci dugg poussière du ci dugg dara du ci dugg ni nga ko defaree woon ni mu mel rek boo ko utilisé noonu lay melaat. jigéen ñi yéen a koy def. ñoo koy defar waaw. Mhm. ñoo koy defar yan jafe ngeen di faral di jànkonteel ci biir liggéey bi. moom liñ ciy jànkonteel bari na ndax daanaka su suñuy mayee bopp rek la ñuy demee amuñu kenn koo xamante ne nii fekk nañu fi pour dooleel nu ci jàpp jàppale nu xam nga boo yoree petit entreprise. am na wares na la ci am na jàppale jigéen ñi fi nekk daanaka suñuy moy rek la ñuy demee ñoom mhm. te ñoom it ñun lañ yaakaar mhm. ndax tamit liñ fiy jëlee moom la ñuy yóbbu ca njaboot ga pour dimbandikoo ko kon nu it suñ manee dañuy dem buñ mënut tamit dañuy dem wara diwu toujours dañ koy defar léeg-léeg waaye dañuy dem ba duñ ko mën a jaay teewul dañ koy stocké ba ba di yàlla di ñëw rek waaye ñoom duñ leen mën a gàntal benn yoon daal dañuy bëgg di ànd ak ñoom chaque jour rek am na ñoo xam te dañuy ñëw pour def formation ñu pare génn dem berse fi bopp waaw léeg-léeg daana am am na ay xale yoo xamante ne nii léeg-léeg daanañ leen defal formation ci bëgg rek ñu man li nga xamante ne nii moom la jigéen war a man ñu dikk si mën nañ nekk suñu doomi xarit mën nañ nekk ñoo xamante ne nii tamit dañ ñu leen a jox pour ñu jàppale leen loolu dañ duñ daawuñu fay daawuñu def daal dañ leen di jàppale rek pour ñu man mm, formation bi du yàgg léeg-léeg weer sax bu ko amee da koy man da ngay man cagri man araw man cere man matière yi ñu fi defar yëpp waaw ku bëgg a ci biir nan lay def. ku bëgg a ci biir loolu moom dama leen di bàyyi ak kayre mhm. kayre mi nga xamante ne nii moom wàllum jigéen ñi moom laa ko dénku la ci gën a bari mhm. waaw mooy nekk ci leen biir di leen saytu di leen toppatoo mhm. li nga xamante ne nii lépp li ñu war a def ci wàllu set gi ak sellal gi xam nga lii dafa aajowoo set ak sellal ndaxte boo ko xisee defar ba pakete ko nii moom kenn duutu ko raxas kenn duutu ko def dara. kon li ci war ñun ñoo ko war a def. waaw surtout ci côté hygiène boobu sax ci laa bëgg a ñëw par rapport ak Covid bi ñu gis ne tamit euh, set gi dañ ko war a yokk bu baax a baax naka ngeen di sàmmonteeg loolu. Mm, mm, xanaa nag di defar unité bi ba mu set teg suñu ndox di raxasu di raxasu ak ordre sa belang madaar di defar ba mu set wicc fukki fan ak juróom yi dañu def grand mélange teg suñu ay sel def suñu ay maska defar ba mu baax daal. bu mm. ñu nee 8 mars na sargal jigéen ñu ñëw opté suñu choix ci yéen ban njëg ngeen ah xanaa am contentement ak mbégte rek di leen jaajëfal bu baax nag di leen ñaanal ci yàlla ni nga xamante ne nii noonu ngeen di xoole jigéen ñi nga xamante ne ñoo ne ci waar wi ngeen bëgg ñu xam leen ba mën leen a jàppale noonu ngeen ñu jàppale yal na yàlla jàppale leen noonu jëmale leen ca kaw ca kanam sa xam ne yéen moom mënuñu leen a fay ndax lii dafa rëy ndax tey boo ko bëggoon xaas bu bari nga ci war a joxe kon tey yéen bu ngeen nu defalee lii dañ ci am contentement ak mbégte am ci yëg bu baax nag merci beaucoup léegi ban message ngay lancé jigéen ñi nga xamante ne bi ñu ngi toog di xaar war jug liggéey ban message ngay lancé xanaa wax leen rek nag ñu jéem a góorlu mm-hmm. kenn ku nekk ci ak la nga tollool mm-hmm. ndaxte liggéey moom doonul ne lenn rek la ñu war a liggéey lépp loo xam te boo ko liggéeyee mën caa gis sa bopp rek nga jéem caa góor góorgóorlu bu baax te bañ a toog di xaar kenn ku fekk ku ñëw na fekk la ca la nga nekk mu dooleel la ca nga sant ko gërëm ko ku ca fekkutit nga ne ca rek ba yàlla ñëw waaw bëgg daal jigéen ñëpp ne ci waar wi te góorgóorlu bu baax rek ndax liggéey moom mënul ñàkk. Euh, soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay madame. Euh, tur beeg sant bi naka la. man la Kayre jong mhm. Kayre lan ngay représenté ci biir unité bi. biir unité bi maa ngi fi nekk comme agent la l'ARD nekk seen technicien agricole. Mhm. di saytu lépp lu jëm ci wàllu qualité hygiène et sécurité des aliments. Mhm. bi nga commencé def boobu ak léegi naka ngay dundee ak ñoom. ni may dundee ak ñoom. c'est pas trop difficile ndax de bi ma ñëwee dama leen fekk euh, ñu nekk ci wàllu transformation de céréales locales mhm. ma fekk fi tamit ay femmes yoo xamante ne c'est vraiment des femmes exemplaires mhm. des femmes braves mhm. qui veulent vraiment l'avancer léegi moo tax su bi ma ñëwee dama leen fekk ci di d'hygiène déjà ndax maa ngi leen fekk ñu teg seen ay mm, si euh, matériel de lavage fekk naa leen aussi ñuy respecter normes d'hygiène yi avec le moyen nga xamante ne ni ñoom moom lañ am dama ñëw juste pour appuyer ci wan leen chaîne de valeur bi naka la war a doxee wan leen tamit règle d'hygiène yi loo xamante ni dafa jëm ci wàllu aliment surtout hygiène daf si am solo wan leen naka lañ ko war a demee du début jusqu'à la fin moo nekk commencé ci matière première bi ba keroog lay dem ci produit fini incha am na solo 8 mars bu ñu ko waxee xam nga jigéen femme battante yi dañuy war a choisir pour di leen sargal tey nag ñu opté suñu choix ñoo ci ñoom ñi nga xamante ni ñooy def transformation céréale mu mel ne liggéey bi yombul. noonu transformation céréale yombul xam nga lu tax yombul mooy liggéey boo xamante ne nii dafay laaj euh, ay parties yoo xamante ne c'est des travail manuel loolu yombul surtout bu fekkee da nga commencé ci choix de matière première da nga war a dem dans le marché. choisir sa matière première de bonne qualité jënd ko ñëwaat boo ñëwee processus diagramme bi yëpp nga topp ko dafa diis en plus dafa metti boo ñëwee ci lu mel ni produit mil nga xamante ne dañoo war a defar couscous dañoo war a defar caakiri dafay laaj cuisson da ngay sentir ne ce sont des femmes mais dañuy nekk ci naaj bi dañuy nekk ci taal bi nga sentir ne ñii ñi ngi yëg douleur mais juste pour produire benn produit boo xamante ne dafa mucc ayib da leen koy jaral dañ ciy yendu mm-hmm. tey boo ñu doon defal benn synthèse ci seen jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di am ci biir liggéey bi lan lay doon. synthèse euh, seen jafe-jafe lu si ëpp mooy wàllu mécanisation ndax lépp loo xamante ne nii dafa jëm ci wàllu transformation dafa laaj mécanisation surtout dañu soxla ay machine yoo xamante ne nii moom lañu mën du leen di yombalal seen liggéey ndaxte ku jóg di liggéey de travail manuel da ngay xam ne dafa metti su fekkoon ne am nañ ay table de séchage da leen di yombal ci wàllu séchage bi buñ soxlaa lu ñu weer ndaxte bu fekkee ne temps bi dafa changé soit dafay am poussière wala ngelaw bi dafay ñëw dañuy am tous les problèmes pour sécher suñ produit ndax dañuy bëgg produit bi mu nekk produit boo xam ne c'est des produits sains du am suuf du am dara léegi pour ñu am loolu il faut ñu am des matériel adapté te loolu nekkul ne du coup au rek tey nga koy am ndax c'est ça coûte cher ça demande beaucoup de moyens loolu moo tax aussi suñ leen si mënoon dimbali si wàllu mécanisation bi dina si baax ak tam euh, wàllu cuisson bi da ngay seetlu ne dafay metti en plus dafay jël temps day wàññi seen capacité de production journalière il euh, da ngay gis tey ku ñëw soxla commande coûte ko coûte dañuy obligé yokk temps bi ndaxte lan amuñu machine yoo xamante ne ni dafay produire de grande quantité de manière journalière su fekkoon ne am nañ ko moom ça, ça, saa pourrait les aider. Mmh. merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax ci éclaircissement yi nga xamante ne nii jox ñu ko ban message ak ngay lancé ak li nga xamante ni moom ngay tàggatoo. Euh, message bu may lancé mooy bépp femme ak foo mën nekk loo mën a yëngu na nga si def sa yomb nga def sa góorgóorlu te xam ne même buñ la aidewul avec les moyens du bord tu peux réaliser quelque chose te petit à petit l'oiseau fait yi <laughs> merci ko amoon nañ mbégte bu baax a baax seet si waa entreprise waa Kër Serigne Saliou ñuy amal liggéey bu am solo ci wàllum transformation céréale gis nga ni nga xamante ni bii rek noonu la dundee dundeendoo ak ñoom journée bi dañoo ñëw rek ngir sargal leen ci 8 mars bi ndaxte jigéen mooy yaay jigéen mooy société waaye jigéen tamit mooy àdduna nii rek lañ koy defee ak yéen mbokk internet yi di leen jox dig daje bu ëllëg ak jàmm jërë ngeen jëf